IFM Forum Musique. ngeen jëf nañu dem kaso duggi rëbës ànd ak l'observateur xooli na Khalifa Ababacar Sall di dundee ca kaso ba ca biir prison bu rëbës am na fa fu ñu tuddee quartier des VIP di fa ñu tëj boroomi barke foofee la ñu aménacel Khalifa Sall ku gàngooram la mu nekkee ca kaso ba moom Khalifa Ababacar Sall journal bi ñoom moo di julli ak jàng alxuraanul karim ab cellule boppam ca la nekk cellule am bokk ko kenn te it sa kenn dugalu ko ci cellule ba Karim Wade nekkoon Vox Populi ne ko ah kay cellule ba Karim Wade la ñu dugal Khalifa Sall ñoom jot nañu ay xibaar yu wér yu leen koy firndeel xalifa Sall ba mu demee kaso la mu njëkk a laaj journal bi nañu moo di dane waa këram nañ ko ndil kaamil kurus ak sijaada jullikaay gisante na démb ca kaso ba ak directeur de gisante na fayit ak i awakaam La Tribune xëy sampu laaj ci xëtam njëkk jëmee ko ci Khalifa Sall li mu bëgg a xam moo di Khalifa Sall fan lay mujjee toppee nañu ko coowal détournement ba jël ko yóbbu kaso war a wéyal enquête bi tëj gi ñu ko tëj découragé ñu bari ci ay jege ndax yéenekaay bi ne nañu Khalifa Sall amoon na doole politique ci réew mi doole yi ñu ko gàll moom Khalifa Sall tuuma ya bu dëggoo booye boo mu faxasu boole ko génne xalaatam ci bëgg a doon dara ci réew mi beneen laaj bu journal bi samp moo di Serigne Moustapha Sy njiital Moustarchidine wal Moustarchidaati mi ne woon bërki démb ku yóbbu Khalifa Sall kaso ñoom ñaar ngay boole tey ji Khalifa Sall nga ca kaso ba te moom ma ngi ci biti ba léegi léegi nag nan lay def maanaam ban taxawaay lay am ngir mën a fekki Khalifa Sall ci kaso bi ndax loo ne tëj leen mënatuñoo gis seenub maire seen maire di Khalifa Sall ma nga ca kaso ba moo ki collaborateur am tax journal bi di laaj ndax maire bu Ndakaaru du mujj ci ab délégation spéciale li spécial ci mbir mi réew mi quotidien nañu moo di lee ànd Macky Sall tudd nañ leen ci ay rapport ak i jalgati te ba fi nekk ni kenn newu leen seen bët bi suufa ngi ci ku ci mel leen kudd Cheikh Oumar Anne Amadou Sène Niang di expert ci wàllu gouvernance locale ne wàllu observateur a ñu déli la ndax 2012 ak léegi opposant bu fi nekk di lapp-lappi baa nga bëgg a sonal pouvoir bi suqi nañu la dugal la ci kaso bi tëj nañu waa Parti démocratique Sénégal ba ñu jeex léegi ñoo ngi ci waa taxawu Ndakaaru Karim Wade Bara El Hadji Amadou Sall Aïda Ndiongo Ndeye Khady Gueye Omar Sarr Bamba Fall consort Khalifa Sall compagnie ñoom ñëpp tëj nañu leen ci kaso bi ay fukki fukki opposant yu nekk ci réew mi ñu dëkkee leen a tëj ak a tijjee direct info nañu Macky Sall opposant yi ko dar nga dund ñii tëj ñi leen ci kaso bi ña ca des dañoo màgget ba mënuñu koo sonal Xalifa Sàll ma ca kaso ba journaliste ko nañu ñi koy jàppale ak di ñaaw lu tëj gi ñu ko tëj seenug làng ma ngay gën di yaatu ñoo ngay gën di bëri bokk nañu ci les maires francophones ñaawlu nañu ba fa ñaawlu yam jàpp gi ñu jàpp Xalifa Sàll Sud Quotidien mel ne ku naan ko du moom rek bari na ay mbañ gàcc di ay bouclier yu taxaw ci tubayul Xalifa Sàll kuréelug maire francophone Aïda Mbodj ak Parti démocratique Sénégal sëy ba tas na diggante ba jeex na Le Quotidien moo ñu ko wax yéenekaay bi dañu moom Aïda Mbodj ci présidente groupe parlementaire libéral bokkit ci comité directeur bu Parti démocratique Sénégal dégg nañu ko keroog talaata ci Ziguinchor mu ne mbootaayam gii di Alliance nationale pour la démocratie xel xalaatul muy ànd ak Parti démocratique Sénégal ci wotey législatif yi war a am ci réew mi xew-xewu jamono yi am ci réew mi tey ji tànn sa bu la neex la ci yéenekaay ñu xëyandool bokk na ci l'observateur mi ñu xamal seen nas ndaw suteur doomam ju góor ju am benn at ne ko deqet ren rendi Les Échos nañu it démb ci feetuk jigéen ñi mu di 8 mars jenn jigéen moo def lu amul fenn ne dafa muuru ba ne malaaj dugg ca l'hôpital bu Ziguinchor sàcc fa benn liir dem yoonam Les Échos nañu xew-xewu jamono yi yamul foofe ndax chefu ASP yi ca Tëngéej moo sàcc téléphone portable buy jar 90 000 ba moom la tribunal bu Tëngéej doon àtte démb